لا إله ko dañ ko yomb a jàngal lool wala dañuy dañoo baax. waaw ah. ñoom mën nañ ko jàngal. alhamdulilah suñ leen fi fekkutul danañ tiit ci ñoom. ndax nit bu nee ci barab am fa xew. gisut ñu waa dëkk ba kenn ñëw. kon na mu dëkkee ñoom awut yoon. <laughs> dëgg la dëgg la kon gën nañu bëgg ci ñoom gën nañ leen ko dénk itam. waaw jàppale leen ñu bu baax a baax. bismillah. <laughs> moom di daanaka fii la ñuy gisee bu ko weesoo daal sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim jërëjëf sëriñ Tuubaa jaroon ak maam Cheikh Ibrahima Fall muy nuyu mbokki jullit yi ci kàddu sunu kilifa gu tedd gi toog sëriñ Alioune Fall moom Cheikh Amadou Sakkour waaye ci kàddu kilifaam itam muy Cheikh Mouhamadou Fadal mu toogee jotaayu Cheikh lool ci sunu teewaayu tey fii ci Touba Linguère ah ci bis boo xam ne dañ koy fàttalikoo jàmbaari lislaam di bànqaas di kenn ci kër Cheikh Ibrahima Fall muy Cheikh Abdou Sakoor Fall moom mi nga xam ne ci jant yi nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima Fall bàyyi ci jamono li dal Cheikh Salifa da koo dal mooy jant bi nga xam ne moom mujj tu toogee jotaayu Cheikh Cheikh Ibrahima Fall tey doomam Cheikh Abdou Sakoor sëriñ bi nag woote ko ci dëkk boo xam ne li yóbbu woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam madinatul munawara taxoon sëriñ Touba gàddaay ci ay bokkam ba samp yoonu murit ca Mbàkke Kajoor looloo fi indi Cheikh Abdou Sakor Fall muy wéet ak góor yàlla yi ba contrat bañ signé woon ak seen borom ak yéege leen ak yeggee leen ak yar leen ci yitte moo taxoon tey mu jóge ci cosaanam jóge ca suuf sa nga xam ne moo ko moom du xuus ci manding mi ba fekk fu dara nekkul mu samp fa mooy li nga xam ne moom la yoonu murit tàmbalee loolu nag li mu ci jublu woon rek mooy addiyee yomb liggéey addiyee jum jox Serigne Touba te ak dunde lu lew te liggéey ak jaamu yàlla mooy ndigal yi nga xam ne moom la Serigne Touba Xaadimal Moustapha joxe woon kon la taxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem Madina ba samp lislaam ba mu dëgër Serigne Touba bàyyi ay bokkam dugg ci gott bi ba samp lislaam ci ni ko sëriñ Touba ci ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe woon da ko jot nga ndigal ci man mu jóge ci sa borom muy nga yar ñi nga jamonoonteel ci yité waye kenn ku nekk nga yar ko ci kem nam xelam toll ak kem la la suñ borom digal ci mom nga womaté ko non ci womat ga ko suñ borom digal ci cheikh ibrahim fall ci la womat cheikh ibrahim cheikh ibrahim womat ci njabootam loola waraloon nag si amdu sakko womat mbolam indi len fi ngir tabaxal len ba ëllëg fu nekk doon fa ab taal boo xam ne taalu buy jariñ lay doon tudde ko touba linguère kon bu ñëwee fekk fi bis boo xam ne dañu fi fàttaliku Cheikh Abdou Sakor def nañ lu mat a def te it fàttali nañ nit ñi li nga xam ne moom la mag ñi amee woon ngërëm démb te baax na fii jamono toll nga xam ne woote yi àddina yi dafa bari ak woote yi nga xam ne seytaane def ciy këfe kenn ku nekkit am nga part de responsabilité ca ñu yëkku ci yow te yaakaar leen nga leen di wommataat te di leen teg ci yoon ndax fàttalee googu ak wommat bi dina tax liggéeyub sëriñ bi di yees ndax ku ne xam na ne bu fekkoon ne fàttalee ak soññee mën naa ñàkk sunu borom daf doon yebal kenn rek ne ko demal doxal man nàngam mission ci kaw suuf waaye bi waxee ne dafay sàkk ab xalifa ci kaw suuf ku ko fi nekkal te malaayika yi alayhimu salaam wax ko ne ko ndax da ngaa nar a tànn ñooñ tuur deret ak yàq rek dañu war a liggéeyee ci kaw suuf am xamal leen njariñ yi nekk ci nit ak yu ni mel bañ wax lan wax ci gàttal yemu ci dafa sàkk cent vingt-quatre mille muy téeméeri junni ak ñaar ak ñeent waaye mu tànn ci seen biir ñetti téeméer ak fukk ak ñett xamal leen ba noppi yónni leen waaye téeméeri junni ak ñeent yëpp xamal na leen waaye da cay tànnaat nag téeméer ak fukk ak ñett yónni ñooñu mu tànnaat ci juróom ñu wéyal mission boobu te suñu euh, maam Adama alayhi salaam jiitu ci ñooñu ma yabaloon ngir ñu doxal mission bi ñaar fukk ak juróom yooyu mu tànnaat ci juróom boole leen ci ayab alquranul karim ñu tuddoo wululance bi ñooña ba liggéeyee jàllee ak ñi leen wuutuwaat ci kaw suuf ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàll sunu borom nag tànn ñoo xam ne ay boroomi jamono la ñuy doon waaye mu tànn ñoo xam ne te ay mujaddit la ñoo wax ne dañuy yeesal ba tax bi sëriñ bi ñëwee daf ne na nawaytu maa yu jaddidu sunnatahu xaraa wa la yeesal ngir moomu nag moo waral ma Cheikh Mahmoudul Fadal woote te sëriñ bi dafa wax ne ñett dana jëriñ ci fi bàyyi ko ñaan gi koy ñaanal wala lu mu fi defan ba ñu di ko jariñoo wala gas ab ten wala jëmbat garab waaye ñim fi bayyi mu koy ñaanal nak dara jiitul ju ji wala du saali doom ju baax joo xamne dafa lay fatali ja fa nga ne lolo waral njabotu Cheikh Abdou sakko dajé doon wenn say dajé fi nag tay ci Touba Linguère waaye ñu and ko ak njabotu Cheikh ibrahim di seen melokan wu rafet seen doxin wu rafet ku fi ñew rek xamne seen jikko la leen fi nit ñi fekk ndax jafe na bennoo gi ne ci ñoom nga gis ko ci kër gu mag te loolu am na yarub Cheikh Abdou Sakor ak fàggoom la ba tax am nañ ñoom it njabootu Cheikh Ibra gépp ku ñëw ku ñëwut lay sa yéene tey mooy teew fi kon seenu melokaan la ñu ñaan bis bi ñuy defal Cheikh Abdou Sakor ñu yàgg koo taxaw te daje ceeg ngërëmam ndax man mii fi tok taw ak sëñ Aliou mi doxinu señ Abdou Sakor seedeel na ci ndax ki tok sëñ Aliou Fall mbor la ko tudde kon rafete la woon na diggam ak njabootu Cheikh Rafa jalla la gog lañ fi dox ci te di ko suuxat ñaan mu yàgg te it liñ bëgg ci señ bi ñoom ko ci señ bi di señ bi bëggoon ci ñoom it da tax mu fagol leen ni señ bi am ko ci ñoom alaykum wa rahmatulah la ilaha لا إله ilaha Mamadou Falilou Fall moom Cheikh Abdou Sakor Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridina moo nuy nuyu muy nuyoo bu ànd ku cant ànd ngërëm ànd ku ñaan ci bis bu màgg bu tedd bii nga xam ni day bisub sunu kilifa di bisub sunu sang monsieur Abdou Sakor Fall sëriñ bi kat mbooloo mii nii mu demee ku gis di nga xam ni xolab ki doon woote sedd na woote na ci lislaam wuyu sil ko lislaam taxawal nañ ko taxawaayub lislaam kon nag li ca war ci moom moy ak cant ak ngërëm ak ñaan neena def nako ko jotaay bii nag war noo sant yalla bu baax ndax nun dey bay Faal yi dañu wax ci seen lisaanul xaal ni ni li dum neen yalla la te li dum neen yalla la nak ndeke banu koy wax borom Tuuba waxal nako sen seen Seera Faal bu yàgg te ñëpp jotuñu ci mbind ma borom Tuubaa bind te Serapal la ko wax ne ko lii kat du neen yàlla la fu mu ko waxee borom Tuubaa dafa bind ak kasaayit muy naxju xadaayil aaj te tëëri boobee mooy jàngale ak taalube ba mu bindee naxju muy mbind mu tooy xib dafa woo maam Cheikh Ibrahima Fall. maam Cheikh Ibrahima Fall ñëw borom Touba ti xasay defee muy na ju ko daan aaj Cheikh Ibra toog fii mu ne ko Ibra Fall ko yaa ngi yaa ngi muy na yaa ngi muy na ju nga xam ne ko na joo Cheikh Ibra mu bind ca ñaari bay ja jëkk ca na ju lii du ngeen yàlla la ni dawlatul baatilu saaha wa dawlatul xaq ila saaha alxaqu saabitun wa amal baatilu wa in ala fasaa ikun wasaafilu sëñ tubaa ne lii du ngeen yàlla la ci nem kon sëñ tubaa moo ne Seera Faal lii du ngeen yàlla la dawlatul baatilu saa palug neen sëñ tubaa nee ay jamono dong la dawlatul xaq ila saa waaye palug dëgg day day sax waaye xam ne ñu sax na bisub tey bii da mbooloo mi daje ak liggéey bii ci mbooloo wuute nag kër bi si Abdou Sakor Fall ñëwee fii naat yi daw kiwal yi daw kon lii dum leen yàlla la ko baax ki ne alxaqu saabitun dëgg moom lu sax la wa amal baatilu ak neen nag mais bu ñu ko jàngee waaye allah fa saa'ixun wa saafilu day màbb tëj suuf la jëm kon lii dum leen faal yàlla la mais dam ba yàgg suñu sang bu tedd ba mu joxoñaat nu nag maam Serap Fall toogaat mu ñaareel mbir ma xoolal lu nekk day day am ñaar guddeeg bëccëg noor nawet góor ak lu nekk ñaar saa maam Serap Fall toog Cheikh Abdou Sokor Fall romb traversé mu ni mu ni maa ngi toog maa ngi di dem kon bis nii rek lay mën a mel waaye nag faal yaag sa mag yu baax yii di soxna yii ak sa rek yu baax yii nga bokk ci am sakkoor ak magi taali bi yi wél tanak bi jaar tàmbalee teg si seer a pa sa maam ba ji di am te duñu tokki mukk ak mboolem taali bi yi nii rek dañ lay wax ndax jëmu kat bu ñu jëlee alal dénk ko te alal ja di njariñu adduna di njariñu alaxira war naa fonk lañ ko dénk waaye ni yoon li ñu dénkam maam ku ñu ci say bi xam ne seen maam a ngi koy wattu ñu ngi wattu ndénkaan ni yoon wii nag seen maam Cheikh Fall la ko sëñ Tuubaa mu yoonu muy damay wax ni maam Cheikh Fall du ma ci kaay mu kaayaatu bàyyi diw ni na ma Cheikh Fall ni na ko rek du ma faral di wax Baye Moussa Diouf moo ma wax ca Bambey waxtu takkusaan sëñ Moussa Ndiaye nag di def cantu Sëriñ Assane ma ne ma Moustapha ma ne mu ne ma bi borom Touba jógee njaarim ñibbi si Touba ne booba liggéey naa Cheikh Fall ba mu gërëm ma wàcce ma ma dem ngaay samp kër ma dégg ñu ne borom Touba jóge na njaareem ñibbi Touba ne ma liggéeylu ma daa kiise daal da duubal talon nee na ñëw fekk ko ca jàkka jooju yi dox diggante kër sëñ Ablaye Fall ndaar ak kër sëñ Ousseynou Assane Fall ci Madinatu Munawara kër gi man seel fa tuddi Madinatu Munawara ci njaareem ndax bi mu ñëwee njaarim daal liggéey ñaari kër tudde genn ga màkkatal mu karam muy màkka loy loy mille cent seize tudde genn gi madinatu munawara muy Mérina def fa jàkka Baye Moussa Diouf ne maa ngi ko fekk ci jàkka toog mune he he dom war ngeena fonk barab jakk ji war ngeena fonk barab jakk ji ndax sen sen mam kat dom fi la ko mu a sen mam borom Touba ni be mako fi gisse dama ko ne ana wang lu muy doxum nor borom Touba lu muy wut sama keur mo ne ma dama bëgg a Touba te da tagusi si Baye Moussa ne na ma jul dal yi jox ko ni ko maa ngi siyaar ku baax ci mu ne ah mat na ko de doom ne sa maam a Ibra Fall suñu daal yamu soloon sol daal yi ma ko jox. bàyyi soo jum ne Moustapha ma mu ne bi Cheikh Ibra Fall di wax nun daal yi sol maa ko jox. nee na man ma ni ko doomu fi bàyyi de nee mu ni ma filaa lay bàyyi nee ma ni ko yóbbaale ma nee ma ni filaa lay bàyyi nee ma ñettoon sama kàddu ah sëñ Bamba yóbbaale ma. Nasional mam ni muhammad rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. muni mu ni bi mu jamono ta and ak sayna ababakar Sadiq mu taxawal ko aw yonam balu mata taxawal ci aw yonam mu taxawal ko yeb la faal bi mu jamono dama and ak yow nga taxawal ma sama yon balu mata taxawal ci sama yon nga taxawal ko ba rasulullah alayhi salaatu wasalaam jamono mu na fi sayna ababakar Sadiq mu taxawal ko ginnaawam ba lu ma a taxawal ginnaawam mu taxawal ko kon nag yow mii dama la fay bàyyi nga taxawal ma sama ginnaaw ba lu ma a taxawal sama ginnaaw nga taxawal ko ni xeexee doom lii rek a tax seen maam bàyyi ma fi kat kon yoon wi seen maam lañ ko dénk loolu dinkaan bi kee ba mu àndee kee muy rasulullahi sidna Abubakar lu ma ta taxawal kanamam da koo taxawal mu bàyyi ko fi ginnaawam lu ma ta taxawal ginnaawam mu taxawal ko Sëñ Tuubaa ni ko yow bi ma àndeeg yow lu ma ta taxawal sama kanam yaa ko taxawal dama la fi bàyyi kon ba lu ma ta taxawal sama ginnaaw nga taxawal ko yoon wi yéen nañ ko dénk benn la ca jiitu ca njël biiru taxawal ga bàyyi ma ka suñ Abdou ñag ñu mag ñi may xam na leen bàyyi màkka faal wax ma ni ma mu turaa ma ne faal mu ne maa fekke duma lànk naa duma kaay mu kaaya nee bi ku baax ki demee Cheikh Modou Moustapha Mbacké alayhi salaatu wasalaam toog boobu amagu nee ne panas yàgg na 27 gouverneur général mooy tubaab yilif Afrique fukki pays ak ñetti Afrique francophone balaa woyof wax commandant de cercle bi nekk njaareem ne ko nag ma dajale siix murid yëpp booba tubaab yi ñaar rek ñooy am wata gouverneur général ak gouverneur du Sénégal commandant yi fos lañ daan war chef de canton yi fos lañ daan war nee bi mu ñëwee commandant bi convoqué cheikh murid yëpp kër commandant bi boobu yoonu murid yi àndugul te liggéey Cheikh Fall bi dénkaale li ñu ko dénkan mooy boole yoon wi nos leen ci génn buum daa war a am booba kenn ku ñu bari dañuy defe ni ab ab xalifa bu Sëriñ Tuubaa ab xalifa yoonu murid ñii ku nekk di bind góono général gouvernement général bu jox la murid yi fa mu dafa yónnee ab leeta wala télégramme mooy détresse gouverneur ñëw daal di ni commandant yéegal ci sama oto bii yëlli manel faal na nga saw fas ànd ak chef de canton yi nu dem ci tenue su njëriñ ba defar réunion Cheikh murid yi dem leen pencum kër gu mag ning ma fa bàyyi Mbàkke Faal ni na ma commandant de cercle bi ànd gouverneur Sara ñu dem ci teni su njëriñ ba yénni yénni maneel tag ah, ko war chef de canton yu topp sii xama nit ñëw péncum nee na ba ñu demee nga xam ne yàgg may waxtu tëkkusaan commandant ñëw ànd ak ànd ak ànd ànd ak gouverneur général yéen ànd ak chef de canton yi ñu yeew fos yi muy autorité bi Cheikh Mourid yi toog ñu ñu teg taabal ji garde yi wër leen Cheikh Mourid sa mbakk ali satu ba ak mat ga ñëw toog commandant ni ah, ni lii sama yoon mooy dama mënatul yoonu murit sama soxlaa ku nekk di ma woo su ma soxlaa woo yoonu murit may woo ku nekk mënatuma loolu dama bëgg yoonu murit jiital kenn su ma soxlaa yoonu murit woo kooka su ma yoonu murit soxlaa kooka woo ma lii laay mën sëñ Modou Moustapha Mbacké dal di wax ni Baye Mbacké Fall nee sëñ Moustapha Mbacké dal di wax ni ah loolu nag day jar woo saa Baye Cheikh Ibra ndax moo fekke woon cosaanu yoon wi day jar woo saa baay Cheikh Ibra ndax moo fekkoon cosaanu yoon bi ne ne entrepreneur boo ko góor a mën nañ ko wooyee ñu dem wooyee ko boobu mu ngi ci kër ga ca mag makkatal mu karam boobu jógi ni Medina ah muy sëñ Moustapha Mbacké doomi sëñ Bamba ji moo may woo ñu ne waaw mu ne hee ah dégg naa woote commandant de waaye doo man benn woote rek day wuyu muy bu sëñ Bamba moo tax dimul kër commandant mu solo ba jekk sol perkaal bu yor tal perkaal la daan jiital xoolal photo saam seen fal yëpp di jiitu te weex mooy nekk suuf perkaal bu yor tal dafa dafa xayan jël maylus tàcce jël bot yi sol jël modèle sol modèle mooy mbaxana mi si ib sa ko daan sol mooy mbaxana mi dem ba ca kaw wàcc ba tolloo keru bi képp yem ci loolu mooy modèle moom moom la daan sol modèle mëneel mëneel la tudd sëñ Moussa Kani sëkkal kawar booleeg dara yu may luus laa ko xameel booleeg mëneel mu dee luus yu may looloo mooy mëneel aw yoon ku ci nekk da xam civilisation yoon wa na mu demee da nga mbaxa ne moom i ni ci digg ginnaaw Serigne Assane Fall ko yokk sëñ Mourtala sëñ Mourtala mi dama dama ni moo ko ci doole sëñ mu ne yokk waaw si ma yokk sëñ Assane Fall moo yokk ci yoonu Baye Fall mbaxa mi daanu ci digg ginnaaw laar bi mu ne saam si la fa sol mu nel mi jël kaala ju teg ci maa xoolal maa ngi ni firnde photo maam Cheikh Ibrahima Fall bi boo gisee bi mu kaala woo genn wet gi moo gën a jóg di ci des dañu jung laaru mënel ba daa kaale waale laar bi wet gi gën a jóg gii ñu jëlee ko toogu bi diggante kër seer ak kër gu mat kër gu mag mat na kilomètre ak genn wàll ñu jëlee ko satala gi su doxee génn wàllu kilomètre ñetti yoon daana ko jàpp ci diggante bi ñetteel ko sees bi mu summi bot yi yeesal am jàpp ndax mu ta jox borom Touba loxo lu dul njàpp mu tooy ndax jàpp na ni borom Touba moo gën a te moo gën a sell alxuraan te téere bi yàlla dañ bu ko kenn lal te jàppoo saamam Cheikh Ibrahima Fall di boole tahritul xal bi ak tahritul jismi laabu xol ak laabu yaram ba mu ñëwee mu defal ko ni mu daan defal suñ Touba kon la ko suñ Touba ne lu ci saw yoon ko taxawal sama ginnaaw mu nga caag ñëpp ni rugg mooy léeg ba yàgg yàkkamtiwul bàjj ba dukkan ba mu ñëwee ba jub suuf kër ko mag musu mi mbaxal musu mi dàll yi def tànkum neen dindi kaale gi sànni mag ñi for mu dindi monal mi sànni mag ñi for ba mu jubee sëñ Moussa Mbacke fekk wëq lu mu am ci kër gi def ko ci jibo ji mooy poos bi ba mu jubee sëñ Moussa Mbacke mu sëq ko lépp dóor ñaari bëtam ci suuf rambut mu Moussa Mbacke dog ko ñaari loxo su jóot dog ko addiye sëñ Moustapha Mbacke ni ko bàyyi Cheikh mu ne Mbacke mu ni ko gouverneur général dafay ñëwoon nee na lii ay tànkam mooy <coughs> dafa dafa mënatul su ko yoonu murit soxlaa ku nekk di ko woo bu soxlaa yoonu murit di woo kenn ku nekk mënatu ko dafa bëgg yoonu murit jiital kenn su ko yoonu murit soxlaa kooka woo ko su soxlaa yoonu murit woo kooka lii la man ma ne nag kon day jar woo saa bàyyi Cheikh Ibra ndax moo fekk cosaanu yoon wi mu ne eh ya doom wax nga dëgg de doom bi ma sa bàyyi day doom ju dul rakk ma gudd. jawar loo daal di fukk taaba di rël rël rël garde ak autorité ñun silence ñëpp ne xeeram ci ñun ci ñun lanu ab yar. lii moo deb yar yar bii lii moo deb yar noonu noo jàngal autorité française ab yar xoolal bu mel nii niiw ñu kenn noppi kenn ko ne xam nga li la war sëñ Cheikh Fall Baye góor daan wax naan ak taali bi ab doom la yar ak teggin mooy saal ba te doom bu amul ab saal boo ko yéet ba sax xooleen yar bi fi nekk teggin yi te jëmu jooyee kenn moo gor barab bii yàlla ko yàlla fayal Baye góor mbooloo mi ni teg ñu ni silence gouverneur ni naa la ma doon wax waxatuma laajatuma ndax bi ma waxee li ma bëgg dañu ne nañu wooy Cheikh Ibra Fall damaa defe woon ni bu ñëwee mooy doon kilifa bi yoonu murit ndax koo xam ni kenn mënta def dara te ñëwul mën su la wax dara te ñëwul dara du sotti te ñëwul kooka laa defoon bu ñëwee mooy doon kilifa yoonu mu waaye bi mu ñëwee def naa sukk na raam na joxe na addiya na kon sëñ mu tara Mbàkke mi mu def lii moom jiital naa ko ku ma gisati nga jëm faneen dinaa ko diggaale ak yéen waaye xool sa maam moo mat moo mat pexe bu ne seera pexe nga ca bàyyi Màkka Fall nee na ma maa fekkee mais saanam si fi mu sukkan boobu dafa mel ni dañ ko suñ suñ ay yam dañuy taxaw ne jàkk gouverneur général joxoñ ko te boobu gouverneur général kenn ñu ko joxoñ ko du Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Fall kenn kenn kenn kenn kenn ni ko hey waay hey waay doxalal sa adduna te bàyyi nag suñu diine laa ikraaha fi diin Cheikh Fall ni ko diine amul forcé diine amul forcé doxalal sa àdduna te bàyyi nag suñu diine Cheikh Mourtada Mbacké mii ne ko Cheikh Mourtada Mbacké mii ku mu doy ne nu bàyyam doyawan nga ànd moom ku mu ni doyewul noonu ñi mu doy ne nu bàyyam doyawan nu ànd moom. bu buñ dee ba tey ngeen defee ko nii yàlla yàlla na sax yàlla yàgg Cheikh Afar wàcc na bu juree wàcc na wàcc ngeen yàlla na ko yàlla saxal firdan wa rahmatan min allahi badi xayra min dunia wala fi ajami wasalaamu aleykum wa rahmatullah